waaw Mister Shake la ma xool ndax def ko bluetooth d' abord ñu ñëw continuer waxtaan bi tegal leen Farba Ngom Amadou Ba ba ñu jëmee Fouta def li ñuy def terewul boo yu am fit boo yu am fit naan Sonko Sonko gis ngeen lii loolu c' est extraordinaire c' est extraordinaire Fouta Fouta ñu so sonkorisé leen comme ça c' est tak. extraordinaire Farba mi albo naan Alba Ba garaawul avancé boo yaa ngi nii seen ginnaaw yore di yëkkati loxo mais booy booy am nañ si temps lii extraordinaire extraordinaire gars yi duggee da ngeen di laaj boo leen duggee da ngeen di partage non c' est extraordinaire c' est extraordinaire démb am na ku ma ko wax mais gëmuma ko woon am na ku ma ko wax démb mais gëmuma ko jaajëf dubulaay ñu ne ma Farba Ngom dañ ko sonkorisé xaaral ma teg ko ba mu gën a yaatu dañuy doog continuer suñu waxtaan Amadou baa ngi noonu ñu nii dañ leen a yuuxu sonko sonko sonko waaw dañ leen yuuxu yuuxu yu metti gis nga xarbaa ngi noonu di am lu muy expliqué extraordinaire extraordinaire waaw extraordinaire booy baa ngi noonu di la loxo ñu booy am nañ fëdde xarbaa ngi leen di xool xam naa danaan danaan jéem a xam ne après mu ne nañ jàpp dégg nga te booy dañoo bëri sax mais li c'est extraordinaire li kuma ko waxon du ma ko gëm Sénégal am nañu amé fi tek bi nga xamné boy booy yëf soppat ñu lay japp boy dem fekk premier ministre ah waaw euh jaajëf euh, jaay Ndiaye jaajëf jaajëf blay li dafa extraordinaire boy seen yaram mo tangé effet 111 111 bi mo def effet boy yi lii c'est un c'est un c'est une de Sonko 111 bi gis na booy baa ngi noonu di yëkkati loxo man dama yaakaaroon ne ni montage la du montage booy baa ngi noonu di yëkkati loxo gars laaj na ngeen tamit boo ñu duggee da ngeen di laaj da di partage bi mu gën a yaatu waaw waaw 111 rek waaw Sénégal doo dem fenn tàppale <laughs> jaajëf gars yi xaar ma tegaat leen ko parce que image yi moom image yi yoo xam ne kenn mënu ci doyal man lii ku ma ko waxoon du ma ko gëm xar ba nga nee na maatam mooy titre foncier Macky Sall waaye terewul boo yaa ngi nii lii dafay wane ne senegal moo leen suur même xalpulaar yi ngeen wax ne danga xam ne mën nga leen contrôler xalpulaar yi gëmuñu leen kenn gëmu leen ngeen jub jox am ngeen trois trois millions de parrain ñii de bokkuñu si trois léegi ngeen gis booy yëkkati loxo par ba jaxasoo mais lii c'est extraordinaire ñii premier ministre buy déplacé wu gendarme day ànd ak moom bip day ànd ak moom ñëpp day ànd ak moom mais terewul Amadou Ba dañ ko sonkorisé xam nga ne lii bu doon Macky Sall kenn ko ñeme def Amadou Ba kenn wegu ko kenn ko bu doon makki Macky la lii du am fenn fenn waaw gars yi xaaral ñu wane image ci tuuti ba gaa yi gën a dugg ñu doog a wax nag lan moo tax jomaay ndara gañe mu dee bokk na ñu wax leen lan moo tax ñu gëm ne jomaay day fi jëlee système bi jomaay bu bokkee daf fi jëlee système bi dinañ leen defal analyse waaw mais balaa dara bëgg naa leen tegal tuuti Farba Ngom mi ngi nii di am lu mu expliqué Farba nga xam ne njuuj njaaj yi ñuy def yëpp Sénégal moo ko def Farba dafa bëgg a récupérer Sénégal est-ce que ñun dañu war a toog seetaan Farba Ngom di def ay manœuvre ba récupérer Sénégal parce que Macky Sall dem na moom moo doon géwalu ma Sall léegi dafa bëgg a nekk ah waaw dàmbooj tamit dinañ wax ci kaam parce que dàmbooj gaa yi ñu ngi koy kaas ñu ngi ñu ngi wax ci mbiram ne làmminam dafa rëy dàmbooj làmminam dafa rëy fa génn di joxe stratégie Ousmane Sonko Khady parce que dàmbooj dafa seeti Sonko di wax naan Sonko nee na jomaay du plan B dàmbooj wax leen ko mu dimbali ñu <coughs> ñëpp a koy daal fi mu nekk ne leen làmmin moo rëy pourquoi muy joxe suñu stratégie di wax stratégie bi conseil constitutionnel la ah di joxe suñu stratégie léegi boo waxee loolu conseil constitutionnel Macky Sall dem conseil constitutionnel changé foofu am lu mu fa changé ah gars yi tey dañ leen defal analyse wax leen ne Diomaye Faye am na ñu yaakaar ne bu bokkee dafay gagné élection yi dinaa leen defal analyse <coughs> Diomaye Faye bu bokkee. day gan mais est-ce que Sonko dina bokk est-ce que du bokk loolu dinañ ci wax mais damay xaar gars yi dugg tuuti rek pour le moment dama leen di tegal benn image bu extraordinaire <coughs> mooy Amadou Ba dafa dem Matam ñu jox ko cent quatre-vingt mille lu bees mooy Matam lañ leen humilier nii maatam Matam lañ leen humilier ñuy wax naa naan am nañ fa cent quatre-vingt mille parrainage gis nga gis nga booy ragaluñu Farba Ngom waaw daam dafa war a noppi loolu la ñëpp bind ci ci ci ci ci commentaire yi nee nañ ko sàllaam mi dafa rëy ah, lu tax nga nekk di joxe suñu stratégie di wax conseil constitutionnel léegi Macky Sall dina changé conseil constitutionnel wala mu menacé leen bu dee Sonko am na lu mu fa doon def Sonko tamit warul lu ñëpp lépp rek mu wax ko Dame mais xam naa Sonko moo ko tey parce que xam na ne Dame Mbodj Lamine dafa ratax Sonko moo ko wax li mu bañ a dégg Dame Mbodj il mu comprendre ne. 111 mooy suñu candidat pour le moment Mom nak dafa yaakaar mom moom la Sonko di tan dambu tojo fenn dambu tojo fenn kon 111 bi ngay jéem yakal yàqal mënuloo ko yàqal gars yi gën leen laaj gën leen partage gis nga Farba nu mu mere léegi mu xol boy pour xàmme leen booy yaa ngi di yëkkati sen loxo boy yi ragaluñu mais boy am nañu fit de est ce que après ñu leen japp ñoom ñep xol leen mais boy yi Ousmane Sonko mo leen ko jaral. onze ngoog gaa yi gën leen laaj gën leen laaj onze ngoog quatre fois onze quarante quatre gën leen laaj gën leen laaj waaw na gën a bëri waaw Farba ngi nii dañ ko waaw booy am ñu fit booy am nañu fit waaw Macky Sall bu doon Macky Sall kenn du ñeme tax ji di wax Sonko Sonko Amadou dafa mel ne amul sax ay garde dafa mel ne amul garde am Amadou Ba gisuma fi bip gisuma fi police gisuma fi dara Amadou Ba yi wegguñu ko Macky Sall weggu ko coquille vide la xool leen ko lii nan la mën amee ay booy ñëw di yuuxu Sonko Sonko kenn waxu leen dara est-ce que du waa APR sa boppam ñoo bëgg sax saboté Amadou Ba est-ce que du ay élément Diouf Sarr wala ay élément ah parce que booy amee fit nii taxaw di wax Sonko Sonko Sonko dégg mu naan avancé leen nee na leen avancé leen gars yi gën na laa gën a partagé dàmbuj il faut ñu wax ci kaam waaw mais xaaral ma wan leen lii tuuti deux encore deux minutes ma ñamal leen ci lii sonkorisation bu saf sonko ñu wax leen chômage lu tax man gëm ne jomaay day gagné lu tax man ma gëm ne jomaay bu bokkee day gañe premier tour te système bi duñ ko fi jëlee léegi man dama am yaakaar lool bu doon makki bu doon makki la gars yi booy duñ sax am accès fi yëpp gars nañ bàyyi annonce bi jàll bu doon Macky booy yi du ñu am accès fii yëpp yëpp kon Amadou Ba Macky Sall ko joxu ko moyen pour joxuñu ko protection joxuñu ko dara en tant que premier ministre candidat Benno Bokk Yaakaar nga dem Matam ñu lay sonkoriser gën a yuuxu gars gën a laa gën a partagé waaw élection yi dafa jax fi mu nekk nii fi mu nekk nii Ousmane Sonko li mu def li mu def c'est un coup de génie c'est un coup de génie parce que fi mu ni la base est redynamisée Mom la américain di wax génie yi ragaluñu ñu yaakaaroon na génie dañu ragal kasso li la ki di wax la base est redynamisée comprendre demba aussi amna ben ben ben benn abbé bu ñu Pape tegal muy wax né ku wara bok ci election yi dafa wara bok ci election yi senegal nit ñang commencé jengu li tax ñu gëm ne jomay Fay bu da fay gagner parce que Amadou Ba mi ngi ni gaay nañu bayyi xaar ma tegal leen li ba annonce bi jeex bu annonce bi jeex ma dafa leen analyse mo bëgg wax def dañuy jëk wax ci Dàmbo wax ci abbé bobu abbé bi nga xamné néna Ousmane Sonko ak ñu wara bokk ñu wax ci juge juge Sabassy Faye ni mu jëngoo juge Mariam Diop Gueye ni mu jëngoo procureur keroog conseil constitutionnel jour boobu ba ñu attee ba pare dafa am benn juge bu tudd waaw jeex na juge boobu mi ngi tudd fàtte naa sax Ba mu ne du signé délibéré yi loolu loolu nekkate juge bi dafa ne signé wul délibéré yi mooy keroog ba bëgg voilà léegi wan naa leen wan naa leen Amadou Ba ni ko gars yi sonkorisé wan naa leen ko ah léegi nañu wax tuuti ci dàmbo su fekkoon ne mën naa génne article euh, bu ñu joon traître Amadou waaw Benno Tasaaro Benno tas Benno Bokk Yaakaar traître bu joon de traître loolu ñoom Sandogo télévision TV ñoo ko wax waa xaaral ma jéem a xool dàmbo visite démb tegal naa leen la docteur Cheikh tijaan Dièye soxlawul may ñëwaat li mu wax ci Ousmane Sonko ba mu ko seetee dal na xel léegi ñëpp ngi seete Ousmane Sonko kan moo ci topp dàmbóoj Mbodj Dame xaar ma xool ndax su ma defee Dame Mbodj visite Sonko Dame Mbodj visite Sonko ndax dinaa gis article bi visite Sonko ndax dinaa gis article bi Dame Mbodj nag teewul làmminam waaw teewul làmminam Dame Mbodj raconte sa visite avec le président Sonko au Cap Manuel mi ngi nii mi ngi nii daam teewul làmminam du lépp loo xam rek da ko war a wax ñëw. lu muy wax dégg nga dégg nañ ko déglu dégg nga dégg système bi anti système. c'est-à-dire Ousmane Sonko ak Macky Sall ñu ngi wuure. dégg nga léegi Ousmane Sonko teg na parrainage su euh, Bassirou Diomaye Faye. waaw bi mu tegee parrainage Bassirou Diomaye Faye léegi système bi ñoom comme amaguñ leen mën a teg. waaw li ñu def mooy commencé ko attaqué. commencé ko attaqué naan non salafiste la comme lañ doon def Ousmane Sonko. waaw en 2017 ak 2018. dëgg la comme naan salafiste la. waaw Moussa dem Touba Moussa dem Tivaouane. waaw loolu lañ commencé di attaqué Bassirou Diomaye Faye. waaw waaw yaa ngi dégg parce que xam nañ ni li Ousmane Sonko teg. dëgg la gars yi gën leen laaj gën leen ko partage. tegul Bassirou Diomaye Faye pour mu remplacer ko. ku la ko wax. Ousmane Sonko dafa lancé parrainage u Bassirou Diomaye Faye. dëgg point. may wax sénégalais yi muy dëgg leen que bu leen kenn nelawal le système. dégg nga xam ah, ñu bëgg ngeen arrêté parrainage parce que Bassirou Diomaye Faye. kenn bëggul ñu arrêté parrainage am ci ndigalal Ousmane Sonko. waaw Sénégal gépp ak ci diaspora bi. waaw ñëpp a ngi koy parrainé. di rang di ko parrainé. waaw yow yow kenn du la parrainé de gars yi nañ déglu. xam lu tax ma leen il faut ñu def très attention ci Dame yàlla xam na ne maa ngi doog a déglu lii de maa ngi koy doog a déglu mais leer na ma ne dina wax boppam dina wax dina wax man tamit paral na leen ma wala sama parrainage dina dina fexe ba tudd ci boppam xëy na pas ci huit minutes yi mais man leer na ma ne ku seetaan émission bi yëpp di nga dégg Dame mu wax la ne moom it nañ ko compal parce que ba passé loolu la wax nañ ko déglu nañ ko déglu. mais li mu bëgg gëmloo nit ñi que ne que ne euh, Bassirou Diomaye du suñu kandidaa moom dafa njëkkoon wax ne Ousmane Sonko yónniwu ko moom dafa njëkk wax ne ñoom biram Souleye ñoo signé léegi nag nee na Sonko moo ko yónni kon déjà foofu daanu na fa léegi nag daf ñoo bëgg gëmloo ne Diomaye du plan B ñun luñ ko bëgg expliquer mooy Diomaye même bu nekkee plan B même bu nekkee plan B ah mooy gagné te dinaa leen tegal analyse bu garaaw bu Sandiogou def ci li tax jomaay mooy gagné xam nga saa njógu du expert bu tax ñuy wax expert waaye démb dama ko seetaan mu wax benn mu def benn analyse bu graaw ma ne saa njógu li mu wax dëgg la jomaay bu bokkee du sax du du du day raatale day raatale euh, euh, amadu Ba ba pare jomaay bu defee

waaw teg na ab candidat pour mu dajaleel ko ay nitam parce que ñoom li tax ñu téye fiche Ousmane Sonko ci DGE. mooy waaw malgré la décision bi juge Sabassi Faye jël à Ziguinchor. Wow. tax ku ñu ko jox ay fiche am. Hmm. lii lii lii lii xam bañ bañ parti bi yëngatu rek bañ parti bi yëngatu. maanaam bu ko joxoon ay fiche am mu teel. waaw Ousmane Sonko daa noonu nekk ci mbedd mi di parrainé. Wow. ñuy ñuy rang di ko parrainé. waaw bay mer di ñibbi. dëgg la gars yi laaj leen partagé Wow. waaw. loolu moo naroon am léegi nag loolu daanaka am na parce que démb Touba soo xoolee ci mbedd yi. Wow. mbedd yi Touba yi. du Touba kese de. fépp la du Touba kese fépp la fépp la wan naa leen Grand Dakar sama rakku jabar def ay parrainage waaw. ban ban euh, ban côté la ñi ñi ñi ñi parrainel Bassirou Diomaye Faye waaw. <laughs> dëgg la c' est pas vrai du loolu kese mën na nekk plan B nag ah, mën na ko nekk kan mooy plan B yow ah. kan plan B yow. Ah, dégg nga dégg nga nee na Ousmane Sonko candidat é mooy plan B. parce que démb bi ñu waxtaanee. daal mi ngi contribué boppam man parrainage dans la stratégie globale. dégg nga léegi nag stratégie toll. déglu leen deuxième palier bi. il reste des na beneen troisième étape. au lieu mu noppi. quatrième étape ça va se jouer au conseil constitutionnel. gis nga mi ngi wax. donc Ousmane Sonko reste candidat. dégg nga mi ngi wax Ousmane Sonko candidat la. waaw mais comme dañ koy jaay doole bëgguñ ko jox de parrainage am. dafa lan. waaw waaw mais ñiy wax naan Ousmane Sonko dafa lancé plan B ba journaux yëpp titre ko. waaw man nag waxoon naa ko avant may gisante ak Ousmane. waaw dégg nga démb laa def sama chronique. Mm. wax waaw Ousmane Sonko maa ngi moom wax. Mm. maa ngi foofu ko annoncé sax ni. Euh, ut naa permis te bëgg naa ko dem seeti. waaw te nangul na ma ko. parce que pour nga seeti Ousmane du ab détenu boo xam da dem seeti ko. am na permis mooy koy. gaa yi rek mu ngi ci forme moom. mooy def mais loolu dinaa wax rek lay def dàmb deglu ak allié Pastef ak wa diaspora mom la Bassirou jomay la parrainel len ko bam am 3 millions de parrain ci ndigalal Ousmane Sonko parce que mom parrain Ousmane Sonko la yoré parce que parrainage bi il faut nit ñi comprendre parrainage bi du dara parrainage bi politique la rek parrainage bi kenn du fa jaare gay yi laaj leen tamit parrainage bi ñu may wax yéen du fa parce que parce que Pastef am plusieurs waaw te am na ay parrainage na ay beaucoup de députés. déglu leen man dina wax boppam. député laa la wax ay député am na solo. waaw donc donc. sama sama waaw waaw mu leer ni de. léegi nag Ousmane Sonko daa doole. munul daaneel de. ci jaarale ko ci parrainage Bassirou Diomaye Faye. kenn mënu ko buggee mais parrainage ak candidature bokkul. dégg nga commencé naan Ousmane Sonko léegi renoncé na au combat. léegi Bassirou Diomaye Faye la def candidat am loolu du dëkk. Ousmane Sonko maa di ba bi ñuy tàqalikoo di nuyonte. waaw nee na ma daam mu ne ko ah mu ne ma je suis candidat et incha allah. dégg nga le vingt cinq février deux mille vingt quatre. dégg nga dinañ fi jëlee système bii fi nekk. waaw kay dinañ dem def. jëlee système bi passation de service ak Macky Sall. dégg nga laaj naa la noo ko fekkee laaj naa la noo ko fekkee ci forme. xam nga tey loolu mooy sama émission. da nga gis ne Ousmane Sonko. mooy sama émission dëgg yàlla Euh, mooy sama émission man gëm naa victoire bi. man jàpp naa ni. waaw euh, daan na gën a am forme baax noonu parce que Ascor buñ ko tooñee jaay ko doole. dégg nga nee na am nekkul en forme kaso ku la génne la Ousmane Sonko dafa am forme ba amoon avant waxul li parce que man nag du ma inventé. dégg nga mais gis nga mu ngi yàq da koy gis. mu ngi yàq Eh, wax deug yalla il est mourant wala et cetera ñepp neen dafa nek en forme mo meuna nekul en forme Ousmane gënon na am forme que ni mel mais ascor la équilibré waaw il waaw c'est très équilibré actuellement mais wax deug yalla Ousmane Sonko euh mi ma gis waaw état d'esprit bi mu yoré waaw conquérant waaw Ousmane Sonko bi ma gis waaw déterminé kon kay ah, kon kay parce que kenn mënu ko téré nek candidat inshallah kon kay ay droit am ab groupe bu ndaw ñoo fi nek waaw sous la dictée de la France. et des États-Unis. donc de la France Afrique. dafa rëy làmmiñ au lieu mu noppi wax parce que intérêt France et États-Unis. Pour le wax bu ko président De leen di hmm. Sénégalais waaw nekk président arrangé leen parce que dina soppi réew mi. dëgg la ko ci yoon. jaay doole bi jeex ñu jël sunu alal. séddale ko man yaakaaroon na sax dina wax boppam mais waxul boppam pare naa donc nee na sénégalais yi projet bii nga moom laa teg yéen ñëpp ngeen d' accord ci ni baax na pour jooyanti réew mi. waaw nee na du ci dellu ginnaaw tey du ci dellu ginnaaw ëllëg. waaw lancé na un parrainage nag pour wane dooleem. a travers numéro 2 daa wane rek dooleem. dooleem rek la doon wane.

pare na leen ma dam jomaay euh, euh, euh, mais compal leen ma compal leen ma ci parrainage compal leen ma ci xaalis parce que amul caution trois trente millions amu ko te dàmbo du ko am léegi li mu wax moom li mu wax waxuñu ko mu wax warul loon wax suñu plan Ousmane Sonko li mu nar def ay conseil constitutionnel yëpp waru ko wax déjà mi ngi naan Ousmane sonkoo nekkul en forme yow mus yow a Habib Sy dafa génn Sonko mi ngi ci forme Guy Marius Sagna génn Sonko mi ngi ci forme docteur Cheikh Tidiane Dièye nañu mu ngi ci form mu ngi entraîné yow nga ñëw di jéem a wàññi nit ñi di wax naan sonk kii nekku ci forme ak dugg na fii génn fii jomaay fee du suñu plan B ñun bëgguñu plan B loolu lu ñu leer la plan B kenn bëgg ko bu ñu sañoon Sonko mooy nekk plan A ba Z waaye nag plan A ba Z leen rek moo ko mën a indi gatsa gatsa rek moo mën a indi plan A plan mais Sonko dafa xam ne bu defee gatsa ah dëkk bi kaaw lay indi te comme yéen yéen a wax kaaw baaxul Pape Alé Niang moo ne xeexatuñu Sonko xeexatuma Pape Alé Niang ne xeexatuma kon il faut que plan B ñu xalaat ko comprendre il faut que ñu xalaat plan B parce que sonkoo moo ne Pape Alé Niang moo ne xeexatuñu te bëgguñu kaaw ñëpp xam nañ ne Sonko bu décidé ne day bokk day bokk par force man loolu laa bëgg jiji ñëpp a ngi koy saaga temps parce que dégg naa mi ngi saaga sax Jomaay Fay parce que buggul plan B Akhenaton buggul plan B ah Baye Ndiaye buggul plan B man Mister Shake bugguma plan B waaye nag bu dee moo fi sës lan la ñuy def li tax ma leen di wax ne temps plan B baax na plan baax na parce que soo Diomaye fay bu demee bu demee élection dafay rendi Amadou Ba xaaral ma tegal leen Sadio Gu du ku ñuy teg chaque jour Sadio Gu du ku ñuy teg chaque jour mais démba seetaan na ko mu def euh, euh nu mu tudd analyse bu grave mu len di wan lan motax lan motax tax nu mu tuddati Ousmane Sonko di gagner xara xara gis demba defana naa na ko Solution TV Solution TV sanjogo Baye Ndiaye gisuma ko de gisuma ko de fa la dugg de wacc il n'y a aucun qui peut freiner déclaration. Euh, xaaral dem solution TV su ma solution TV na ko gis gars yi ma Jomaay Fay man gëm naa ne bu bokkee bu bokkee dafay raatale euh, euh, nu mu tuddati Amadou Ba du ko may dara solution TV xaaral ma dem ci vidéo yi am naa lu ma seetaan démb Bassirou Bala record xaaral ma xool vidéo Bassirou Gueye Jomaay Baye Assane Mesere solution Euh, kawteef bon nouvelle Macky Sall li mu def Babacar non man gisutuma ko de parrainage Bassirou Diomaye euh, euh, Pastef def parenage mbir biir Touba système bi day daanu waaw kay waaw kay système bi day daanu 2024 Sandiogou Sidi Lamine waxoon na ko déglu leen analyse Sandiogou système bi nu mu ndaroo daanoo waaw Sanjoogu Sanjoogu jàngul waaye waaye des fois day def ay analyse yoo xam ne man mi se Shake sax xamu ko déglu ko rek. Euh, yow. leen. par exemple yenn yi waaw da xool rek ci ñi nga toogal nga def sondage. waaw xam xam nga bu Amadou amee 3 millions. waaw yàgg naa pare yow gis nga. parrainé Amadou. est-ce que mës ngeen gis ku parrainé Amadou. Assane laay laaj rek ndax carrément rek ndax gis nga ko quoi. est-ce que mës ngeen ko gis da ngay wax ne waaw. fekk yàlla dëgg la bëgg. xam nga numéro ban gis nga xamuñu sax numéro. day gis waaw ah, fekk yàlla dëgg yow gis nga ku parrainé Amadou. man de mosuma ko gis. ndax gis nga ku parrainé Bassirou. te man gis naa ku parrainé. yow ndax gis nga ku parrainé Bassirou. ah donc loolu rek na parensaay. sondage moom def leen ko. ci yéen ñi nekk xam nga Sadio li mu wax fii c'est clair gars yi nañu waxante dëgg est-ce que yéen ngeen gis fenn fu ñu waa APR toogee nit ñi ñëw di leen pare parrainer amul te te jomaay bañ ko annoncé rek ci la parrainage commencé déggu leen

waaw ah, kay. tey wax dëgg yàlla ay yu bari ñu ngi may woonaa boo gisee ñu bëgg passé yónnee ma seen numéro nee nañ ñu fii dajaloo nañ pour ñu pare ni voilà donc loolu mooy bari nga sooy hmm. déglu rek bon système bi yoor yoor ah moo ko moo bind euh, mbiru parrainage waaw ah mbiru parrainage bi moom waaw wax bi ñu ko lancé non dinaa wax ci dàmbooj après waaye defe naa ne biñ ne Bassirou Diomaye fay dégg ngeen. mooy candidat Pastef. waaw ci Sénégalais yi yëpp mi parrainage démarré na. waaw kay waaw kay. Sénégalais yi moom amatul taxaw. waaw ne yëguma. mbirum parrainage dëgg dëgg la. parce que defe naa ne Bassirou Diomaye fay waaw boobu ba naka ni mooy ki gën a siiw. Mm-hmm. ci réseaux sociaux yi. dëgg la waaw kay ñi di gis. dàmbul joo la ko métti. dama ne. waaw Jomaay dafa jël bés bi édition daa dee. wax lan moy li li nu mu demee c'est que dafa melni legui waaw man buma xolé presse classique bi day melni dañu abandonné li nga xamanteni bi mom lañu wara war wala dañ ko ñeme wuta a man je ne sais pas. <laughs> dëgg la mais daal réseaux sociaux yi ngay gis ni waaw ñom ñom bo fay xol bi nga gis xibaar yi. waaw dëgg li nga xamanteni 111 rek 111 waaw leg léegi nag moom am na ci yoo gaay yóbbu leen ma 111 ay wa c'est pas professionnel mais nak di nga gis li xew mom romb 111 di dem li mom moy li xew ci dëkk bi waaw dëkk ba lool mom laaj leen partagé leen déglu leen rek li mu wax ci système bi. parce que ay xibaar la. si parce que tey Bassirou Diomaye Faye démarré na. waaw. dëkk bi ñëpp kii anamu ñu ni ma waaw xam nga li doy waar. waaw. moo tax am na yu bari yoo xam ne ndaw koy def. ndaw koy def li doy waar mais sooy bu da gis sax ñoo xam ni. waaw ay mag yu yor. waaw ay faux yu parrainage. di bër dégg di ko def te mu la ne ñii. waaw. Pastef sax mën nañ leen a bañ a xam. mën nañ leen bañ a xam. ñu yor foo yi dem di wër di wër parrainage. gars yi laaj leen yéen tamit partagé. Mm-hmm. loolu nag mbir la moo xamante ni mbir mu extraordinaire la donc ni nga. xamante ne noonu la ko waxee loolu mm-hmm. mooy li nga xamante ne bi mooy li nit ñi gis. Mm-hmm. waaw donc nag gis ko wax ko moo ci am. waaw mooy laa nga gis ko it noppi ji. waaw mais kenn mënut a téye géej géej say. ndox waaw démb yaa ngi doon ñëw ci ngeen baal euh, yaa ngi doon ñëw ci mi ngi doon sax moo doon ñu koy wax moo xam fii ci dégg nga la déferlante patriotique submerge le Sénégal dafa mel ni lii day xàlloo yoon que mbir mi leer na ba pare maanaam élection waaw kay son yo bu tey bu ne xam nañ ki ko gañ son yo xam nga man leer na ba pare moom laa la wax moo tax ma ne la waaw am na loo xamante merci son yo bu maanaam buy jóg da nga ci dut mun dara da xam ni mbir maa ngi déglu leen fii déglu leen da

ba deux mille vingt quatre la dakk dégg nga dégg nga système bi ay élément dàmboo ji système bi nga merci am naa Guèye parce que gis nga mhm. après deux mille vingt quatre waaw yeneen doxalin ak yeneen gis-gis mooy li am dégg ngeen moo tax ñu ko da ngaa gëm changement ko merci sooy bu man man ba ma lay wax ba nga ni système ak anti système la man nekkuma di wax naan ay kii wa kii la système la ak anti système waaw sans na nga ko gëmee woon ci Ablaye xam nga Ablaye Wade fekkiwu ma nag jamono boobu mais après li nga expliqué ak ñi nga doon dégg da nga doon wax ni Macky Sall dafay gagné Ablaye Wade waaw gisoon ko yow léegi dama la léegi dama la mais yow da nga gëm changement dina am ci système ak affaire système bi moo fiy jógee ah oui yow loolu nga gëm daf fiy jógee moom daf fiy jógee dégg ngeen 2024 billaay daf fiy jógee dégg ngeen système daf fiy jógee sooy dégg ngeen système bii ñuy dund nii ñuy dundee nii waaw day dañ day dañ waaw leneen lii ñëw nag waaw moo tax sénégalais yi il faut que moo tax fi mu toll nii tiitaange gi bari ni yi ngay gis ni yëpp ñiy dund ci système bi yenn façon dund yëpp dañoo tiit dañoo tiit xam nga Sénégal mooy dëkk boo xam ne bii son yi waaw da ngay jàng ba xam waaw mën daanaka doo fi liggéey parce que bokkoo ci système bi dégg nga lépp koy dajale ba pare mais bokkoo ci système bi waaw gis nga ba ci gis nga musiciens yi daan dox nii bu ñu doon tey jii am na booy yu bari yoo xamante ni bii fënd nañ ay talent yoo xamante ne bii confirmé xam leen son yi gis nga li dafa laal lu bari ay talent yoo xamante ne bii mën nañ waaw fëkk nañ bunt bu ne kii gis nga internet la leen internet la leen bu ñu doon internet kenn du leen xam am na ay talent yu bari yoo xam dañoo suulu yaa ngi dégg Assane a ngi nii hmm. rajo bu ne Assane Merse na fa waaw kenn nangu wutoon xam-xamam waa dëgg la c'est parce que la bawal bawal la dongab daara la wutal ko ay étiquette ne warta wax ci rajo na doon fans ngay doon faral sama si ma waaw yaa yi defe naa mën naa ko arrêté foofu Sa Ndiogou li mu wax c'est clair Diomaye Faye bañ ko waxee cent onze ci la ñu gis ñëpp ñëpp génn di def parrainage Sa Ndiogou daf leen laaj est-ce que yéen mës ngeen gis fenn fu ñu wanee Amadou Ba ay nit tal tal tal table ah euh, teg seen table euh, def seen musique di woo nit ñi di wax ñëw leen parrainer Amadou Ba est que gis ngeen ko gisuleen ko fenn alors que man mii sax démb rek wan naa leen gis nga sama rakku jabar Grand Dakar la nekk xam nga moom ci boppam dafa yor ay fiche dugg ci koñ yi di dugg commencé bind gis nga. foo dem Dakar muy Touba muy Ndar muy fépp wane naa leen fi ay image euh, demba aussi Maimouna Bousso euh, ñu nga xaw ma rond point 4 Urbam ay nit tok di parrainer ay nit Sandiogou li mu wax c'est clair affaire bi parrainage dafa melne ba 111 duggé ci le parrainage commencé xaar ma xaar ma xool ndax dinaa la mën ñom génneel Bousso euh euh nu mu tuddati li ñu doon def démb defe naa passé na du façon mais wanoon naa leen wanoon naa leen ne foo dem ci Sénégal foo dem ci Sénégal gars yi ñu ngi def seen parrainage alors que ñoom ñoom benn bokk yaakaar lan la ñuy def dañuy dajaloo benn place Farba Ngom ñëw ne am nañu 3 millions sama 187 mi ngi nii maatam la jóge mais amuñu benn preuve que ne ñoom nu mu tuddati euh, euh, nit ñi ñoo génnal seen bopp ñoom lan la ñuy def dañuy jël carte d'identité nit ñi. bu yàgg sama jabar dem démb gis ngeen may xuloog moom fii ci live man Mister Shake parce que dama doon def sama live sama jabar soxna Diagne mu bind mu ne ma pare na naa Amadou Ba xaw ma naan Amadou Ba Jomaay euh, euh, Sonko laay pare na moom sax xamul Jomaay xam nga man kontaan ma ne ko soxna Diagne transhumé ne parce que man sama jabar ku ko xam xam ne Macky Sall la ak yaayam Macky Sall la ñuy àndal parce que maire Sali Dieng moo nekk Grand Dakar jënd leen ñoom ñëpp ñoom ñëpp la jënd xam naa ne buñ ma dégg te dinañ ma mere soxna Diagne yàgg naa xulóog moom parce que dama naan ko votelal Sonko mu dem votel Macky Sall ba ma ne sax dama koy utal ñaareel patriote billahi wallahi taalaahi élection euh, euh, municipale yi noonu la demee dama ne ko votelal Sonko mu dem liste nationale mu votel Sonko liste départementale xaw ma mu votel Macky Sall moom noonu lay def pour man bàyyi na Macky mais moom ci boppam nee na gars yi ñoo yaroon seen carte d'identité yu njëkk ya seen carte yu njëkk ya seen photocopie waa APR ñoo yor carnet photocopie sama jabar sama jabar ba léegi demul sax xamna bind dañu jël photocopie am loolu la ma mu ñu ñu ñu remplir ko wa aper non lañu def dañuy njuuj njaaj léegi mu wo frère am ne ko léegi dama bëgg parrainer Sonko sama jabar soxna jaj frère bi ne ko ku dal di ko bind mais nak ci bir xalaat frère bi ne ko may yow est ce que eh, xamna yaay mo ne ko yow yow yow yow nga Amadou baba pare. ci les frères am jël euh, euh, blanche blanche daal di blanche turam daal di ko dindi mais gis ngeen li ma leen wan li ma leen wan frère sama jabar du joxe turam parce que damay bañ gaay yi dem jël si ko parce que waa APR ñoom xamuñu ndax gis nga mu ngi nii frère sama jabar moo dem mu bind ma ne ko nag léegi du ma la jox kat laa la joxul dama ko ndoroon may cinquante mille mais duma ko may dara parce que moom moo xullee ba ñu jël carte d'identité ah yëgul nu ñu jël carte d'identité dem bind bind ko ñoom APR non lañuy défé defee parrainage mais Bassirou Diomaye mom Macky Sall da ci mënul dara rek waye bu sañon ci boppam day génne police mu képp ku ñu gis ngay parrainer sax dañ lay arrêté parce que dañ naan la parti passif dafa tass mais Macky Sall dafa xamné ne loolu mënu ci dara mënul nek nak di continuer di jalgati tass na passif kenn du sol euh, lam kenn du def li kenn du def la même Touba <coughs> Touba bi nga xamné ne sëñ Moussa dafa ne bu fa kenn politique hein même Touba. gis ngeen leen bëgg wan rek ni parrainage yi def euh, parrainage Tour Touba ñi ñu ngi ciy wax ñoom Sanjogo ñu ngi ciy wax xaar leen mais li ma leen bëggoon génneel moy image yi ma leen won demba maymuna Bousso parrainage xana suma defé lool sax di nga gis xaaral maymuna maymuna Bousso parrainage xeyna suma bindé lool di ngeen gis ben image soxlawu sax ma leen di won image yeen xam ngeen lima bëgg expliquer lima bëgg expliquer moy li Sanjogo wax Sanjogo li mu wax mooy euh, gisuma image gisuma image bi li mu wax mooy foo tourné ci Dakar foo tourné ci Dakar lii genre sondage la léegi lii lan lay wane sénégalais yi ñoo sonn ci système bi te man gëm naa ne élection bu ñu fa demee jomaay bokk jomaay day gane xam nga lu tax parce que ñi bindu bii paa dafay bëri dafay bëri parce que booy bëri dañoo découragé woon mais depuis ba Sonko waxee votel len pare na leen 111 ñepp dem jëli sen carte d'identité xam nga war na len Grand Dakar déjà ñepp jëli sen carte d'identité fi mu ne carte d'identité dafa mel ne nu mu tuddati dafa mel or la carte d'identité est plus précieuse que l'or parce que xalé yi dañu xamné ne fi mu nekk nii nu mu tuddati euh, euh, jëlee fi système bi moy objectif bi objectif bi c'est pas son ko nek président xaaral ma tegal leen aussi li ki wax euh clé d'or

non non xaaral xaaral ma ñëwaat xaaral ma ñëwaat ma wan leen defe naa am naa lu ma seetaan ci Clédor euh, Boun Dionne traite Amadou Ba de est-ce que du bi non non xaar leen ma génne leen Clédor lu mu wax démb mais Clédor daal li mu expliqué waaw mu ngi ne les éclaircissements de Clédor déggu leen Clédor tuuti mais avant ma di tegal Clédor gars yi gën leen laaj gën leen partage avant ma di tegal Clédor il faut que

sénégalais sen sen sen sen siège bi fiñu Nek fofu foofu sans cesse temps man affaire politique kiwuma gay na ma ah Say, maki euh, ki dina gagner de Abdoulaye Wade ma ne leen la ngeen wax way Sénégal Sénégal mus ngeen gis opposant bu gagner gay na ma non bi pa mom bi pa Abdoulaye Wade gagner de mais man gëmuma ab Macky Sall aussi ba muy gagné Abdou euh, euh, ki Abdoulaye Wade di gisoon nañ ko comprendre Si paa tamit Action ak expliqué expliqué ne élection Benno Bokk mënul gagner élection li mo ndara am gars ma scénario bu ndara am dañu ndara jël même avec jomaay wax Sonko mom waxatuñ ko Sonko mom bu bokké midi gars liñu expliquer bala midi carte gi day lèr Amérique CNN dañoo ay ci projection Fox News dañoo ay ci projection élection bu amé buñu xolé ci nit ñi génn wax né ki la voté ki la votel ci saasi mën nañ la ne kii gagné na parce que projection yi la ñuy def gis nga buñu démé élection Ousmane Sonko bokk li gars wax dëgg la bala midi carte gi day lèr carte gi day lèr waaye bu jomay bokké aussi xeyna na mën na dem ba 6 h mais jomay bu bokké xolal day gagné par force parce que déjà taux de participation bi ñiy bokk bi pa mooy ëpp Macky Sall mënul sàcc fichier njuuj njaaj fichier <coughs> ba gagné lii nag moom dana am dinañu dem élection Jomaay bokk Sonko bokkul Amadou Ba fan lay jaar gars yi nañu waxante dëgg fan lay jaar ba gagné élection fenn rek la mën a sàcc mooy maatam te maatam mënuloo ko buure buure buure yëkkati fa un million personnes dugal ko fa c'est impossible lii nag moo dara am Jomaay day gagné. mais comme Benno Bokk yakar mo organiser élection té te comme ñoom gëmuñu yalla, te comme ñom dañoo japp né mën nañu imposer li li Amadou Ba 2019, deux 2017, dix neuf ba 1h du matin deux heures du matin mu génn mu né gagné na way bi ba bu ko defee est Sénégalais duñ ko ci bay conseil constitutionnel ci bopam modul am courage ne Amadou Ba yaa gagné parce que tamit nit ki bu lay sàccal. day fekk bu dee dix lañu la ñu soxla nga am sax cinq mais Amadou Ba deux la dara am conseil constitutionnel Macky Sall bëgg leen gëmloo ne léegi da ngeen war a ëlbati bu boobaa nag juge yi dañuy jëngu parce que juge yi gis ngeen li dal euh, Macky Sall ci sabasi ci Marème géey Diop la ko njëkk a dale Marème Dieye Diop dafa jël responsabilité am ne xaa ah, saay man bëgg naa leen sàccal nag waaye nag sàcc dafa am fu mu yem

kii moo ko fa teg Macky Sall même chose moo dara dem moo dara am dinañu li tax man élection bëgguma ko woon man neewoon na leen élection du am Sénégal et j'ai raison ndax élection bo xamni Sonko bokk ci <laughs> loolu mom du élection waaw man neewoon na len gëmuma ne 2024 mille élection dina am kon Sonko bu nee bokuma na jël bu Diomaye fay man loolu tuddee moo ko élection man man xam naa te ba ba fi ñuy waxee ñi am ñu ne Macky Sall dafa bëgg repousser élection yi am na ñu ne Macky Sall bëggul élection comprendre mais scénario bi mu leen dara jox nii leen dara demee Diomaye day bokk léegi nag Amadou Ba ak Farba Ngom comme ñoom déjà nee nañu am nañ 3 millions ñoom nag ñoo jéem a gëmloo Sénégalais yi ne ñoom ñoo gagné alors que waa Pastef boo ñu demee HLM dinañ afficher résultat yi ne bureau sangam ay Nina Fall Diomaye Faye am na 100. Amadouba d'islam, nga dem bureau euh, euh, de ay Nafal, même chose Bo démé Grand Dakar non lay démé, non lay mais légui lolu wa, Ousmane Sonko dañuy tok ñu calculer ñaata lañu am dinañu effectivement que ni ñoo gagné est-ce que est-ce que ñun système bi un ci am problème Ousmane Sonko dafa calcul gis nga buñu ñu dem ba élection mu lén na ñoo gagné Amadou Ba bëgg sàcc suñu élection wala Macky Sall bëgg sàcc suñu élection ils auront des problèmes ils auront des problèmes avec euh, euh, euh, les juges ñu wara joxe résultat bi xawma Sénat la xawma ñoñu ñooñu noonu dara jël sen responsable parce que léegi loolu mode bu bees la mode bu bees moy fonctionnaire yi dañu commencer jëngu dañu commencer fépp ça c'est un problème pour Macky Sall looloo tax Ousmane Sonko dafa gëm né day gagné wa légui nañ déglu clé d'or limu limu wax waaw man am naa yaakaar Lol, lol, lol, lool ci élection yi bi pa am naa ci yaakaar am ci yaakaar je pense que stratégie bu bees la bu baax la nañ déglu Clédor lu mu expliqué déglu ngeen ko parce que euh, dama constaté waaw euh, ci plateau de télévision yi ci journaux yi ci revue de presse beeg yooyu waaw ñuy mën benn campagne waaw euh, de dénigrement dénigrement campagne pour semer chez sur la candidature de. de 111 campagne de désinformation Wow. Pour orchestré. donc euh, le troisième mandat Wow. plateau euh, euh, pour prôner. la thèse.

benn Clédor benn Amadou Ba benn Pape Alé Niang mais nañu gëm gëstu jël suñu bopp. ak ak Dambodj fàtte waaw ko suñu bopp. waaw 57 dafa ne. waaw. bépp Sénégalais. Sénégalais acte de candidature maanaam mën na yëkkati loxoom pour bokk bokk ci élection. waaw Macky Sall sax daf ci bokk bépp daf ci boole bépp Sénégalais électeur. électeur donc euh, ñu jàppee noonu bépp Sénégalais. Ah. électeur non wax ci Dambodj ak ak Sonko waaw. léegi ñu ni acte de candidature boobu. waaw. ci ñetti anam lañ ko mën a porté. waaw bi ci njëkk. muy hmm. benn parti politique légalement constitué. waaw moo lay investir. moo lay investir. ñaareel bi. waaw mooy coalition de parti politiques. waaw légalement constitué. waaw moo lay investir. waaw waaw. léegi nag. Hmm. ñaar yooyu kese ñoo concerné Bassirou Diomaye Faye. dëgg la Bassirou Diomaye bu ko neexee benn parti politique également constitué. oui Pastef investir parce que ci allié Pastef yi. waaw bëri na ñu am récépissé parti politique. dégg mais bu boobaa dañ obligé porter nos parti politique parce que parti boobu moo koy investir. moo koy investir waaw. dañ ni Bassirou Diomaye par exemple vous euh, dites Cheikh Omar Diagne rassemblement pour la vérité. muy Cheikh Omar Diagne Cheikh Omar Diagne. investi. par le parti rassemblement pour la vérité donc candidat au rassemblement pour la vérité les doon.

bu fekkee ni. waaw ci wàllu yoon. waaw. dem nañu ba ci cuppaandaw ba ñu def lu leen neex ci wàllu Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko ay avocat am. dégg nga. ba léegi dañu jàpp ni mën nañoo am dëgg ci wàllu yoon. comme fii nag du réewu dëkk. du dëgg réewu dëkk te ñëpp gis nañ depuis deux mille vingt et un ba léegi. waaw procès Ousmane bi ñu ko defal. waaw jubluwuñ ci lu dul éliminer ko ci élection. dëgg la te ñoom bañatuñ cee ñaaw. bañatuñ cee ñaaw dégg nga parce que ñuy mer day saagawaate. dégg nga cee ñaaw bañeti kawo aussi wonani sorale par ce que sorale na déjà waaw au cas où au cas où ñoom ñu dem ba jalgati yoon parce que jalgati yoon weesuwul jugement définitif en première instance applicable en dernier ressort ñu ne duñ ko exécuté parce que état o déposé recours cour suprême ñu dem cour suprem, cour suprême ni nañ ko attewaat te mu jëlul benn dogal ba kenn ci attekat yi daal di gedd bañ signé délibéré dégg ngeen dégg ngeen Aïssatou Ba si laa ko déggee ci Clédor Aïssa Touba, cour suprême qui bañ ne du signer cour suprême ne Sonko Sabassi lu wax juge foofu Aïssatou Ba pas bañ signer gis nga gars ñu commencé jéngu y a problème bu problème parce que Macky dafay dem juge de di jéngu élection itam nii la dara bu gars bëgg élection yi Sénat wa armée mais Gabon fa Gabon dañu def élection yi ñëpp gis ne saawaay ñàkk na nu ma tuddati euh, Bongo ñàkk na mais Bongo daa di wëlbati résultat yi ne moom moo gagné armée bi xam ne lii du jàll armée bi jël nguur gi loolu nag moo ndara yoot Amadou Ba déglu leen fii. Euh, waaw kon tey jii bu ñu demoon ba ci cëppaandoo ba. waaw ñu xëy Ousmane Sonko mu dem. waaw Ousmane Sonko am na ku ko jëlal nguur gi am na ku pré représenté l' anti système. dégg nga di war a suul système bi ci ay élections yi di ñëw parce que élections yi di ñëw dafa wuteeg élections yëpp parce que ñëpp dañu jël conscience ni ñu fi nekkoon ci indépendance ba léegi. waaw. ñoo ñu teg métti ñuy dund fi mu nekk nii. dégg te ñu am yaakaar ni. waaw système boobu. waaw dafa a jeex. takk takk takk takk. boobu bu jeexee waaw candidat anti système yi. waaw Ousmane Sonko la Bassirou Diomaye Faye ak waaw. ñooñu waaw ñoo ak Cheikh Omar Diagne. dégg ñoom la xam comme candidat anti système. jeex na léegi nag dénkaane ko. <laughs> waa passif ni ñu gëmee Sonko ak les patriotes au-delà de passif parce qu'il y a des la door a je fais un coucou à Amidou. Ah. Euh, waaw di nekk Belgique. la door a neex waay. waa Pastef ñi ànd Sonko. wa nañu gëmé Sonko. wa mon la Sonko gëmé Bassirou Diomaye déglu leen nag waaw kay. Bassirou bénéficie de la confiance totale. totale de Sonko képp ku jege Ousmane Sonko dëgg dëgg dëgg dëgg. dégg nga. xam na. waaw de confiance particulier yi. moo tax nag Dambodj war a yem. ak Bassirou waaw Bassirou Diomaye mooy ki nga xam ne. gars yi laaj leen partagé leen du musa waaw.

amul parce que waaw votel nañ fi li mu wax dañu taxaw assemblée nationale di xeex Pastef. li li doon wax xaaral ñu bàyyi publicité bi jàll. Oh dégg nga Clédor doon li mu wax. Jomaay Faye Ousmane Sonko dafa gëm Jomaay Faye daf ko wóolu te defe naa fii sax lay waxee ne Jomaay même bu nekk président. Si vous avez un an Jomay mën na jël président bi jox ko Sonko waaw Jomay mën na jël présidence bi jox ko Sonko Jomay mën na teug mën na def teug élection anticipée bay Sonko ñëw wala def 5 ans après son ñëw 2029, 10 def ans après joxat ko Jomay Jomay def 5 ans après ñukoy mais surtout li ngeen xamul vous bu nekk président lan lay def day libérer Ousmane Sonko bu libéré Ousmane Sonko soxlawul sax ñuy tëgg élection nañuy def Ousmane Sonko premier ministre premier ministre am na dëkk yoo premier ministre moo ëpp le président Sonko bu que premier ministre lan moo koy tere nekk premier ministre Macky Sall danaan tëj naa ko wala tëjuma ko ñun président ñoo leen mi lu neex la def Sonko day nekk premier ministre wala mu nekk président de l'Assemblée nationale du sax nekk président de l'Assemblée nationale premier ministre lay doon mel ne mooy président Diomaye am naa man am naa kóolute ci moom. te Diomaye mënul trahir Sonko dafa mel ne Amadou Ba rek bu nekkee président fan lay jaar ba trahir Macky Sall mais nañ déglu euh, Clédor mu éggale analyse codee njëkk a def waaw mooy restaurer la volonté populaire dégg nga maanaam delloo askan bi baatam ak kàddoom ak bëgg-bëggam mu fësal ko ci ay élections yi nga xam ne dégg nga ñoom danañu samp seeni nit ñu bëgg dégg nga kon kooku waaw rôle la bu Bassirou Diomaye Faye mën a assumer jusqu'au bout

bos bos. bu ko defee. jomaay rek la. Eh, ngeen am ñaari choix. waaw soit mu def un an def ay anticiper. dégg ngeen. Eh, organiser ay élection waaw Ousmane Sonko ñëw jël. waaw soit mu àggali mandat. cinq ans. le prochain mandat Ousmane Sonko ñëw jël mais de toute façon en attendant tout ça. waaw assemblée dañ koy changé. dañ koy changé euh, mais li que waxul. li mu waxul mooy li ma proposé man. jomaay bu nekk président day jël Sonko def ko premier ministre. Angleterre premier ministre moo ëpp doole ren

tam il faut nga gëm yalla amulo 30 millions suñu parrainage duñ ko yak di def ay doublon di parrainel Diomaye di parrainel daam daam ne nañ ko chompal daam mo wara a gëm yàlla mu retirer candidature am daal di ànd ci lu Sonko wax boko deful kenn du la déglu kenn du fi jël suñu parrainage di ko jox duñ ko def daam ba paré jël suñu xaalis di ko jox ñun on a d'autres chats à fouetter Sonko mi ngi ci kasso bi dañ ko wara a légui kenn waxatul sax waxu génne Sonko ci kasso hein ah? jomay déjà dèjà xamuñu ndax dina bokk wala du bokk parce que Macky Sall mën nako bloquer légui nga bëgg jaam dam lu ñu gëm dam lu ñu bëgg gëm lo xam moy lan Pastef kenn du bokk man bokkuma Pastef kon bu Pastef daano wax len Sonko mu parrainé ma c'est trop tard pour you pour toi daam c'est trop tard pour toi parce que parrainage le 11 lay jeex té fi le 11 do am quarante mille parrain parce que quarante mille parrain duñ ko jël du ko euh, ki ne na ndax dañu jaloux affaire affaire bi jaloux amu ci dañoo ñu on est réaliste ñun dañ leen di expliquer ne daam mom moom ci bopam mo tok mu genn mu ne pare na leen jomaay waaye man tam chompal len ma moko wax génne len sen table nga nek ci koñ bi di mel man mel lolu mom moko inventer ko xam nga ne nit ñi dañuy génne sen table yore sen musique di wo nit ñi boo leen paree joxe leen daam loolu nit ñi dañ koy def soxlawul nga koy wax dañuy pare ba pare joxe ji yëkkati junni joxe daam nag nee na nañ ko compal daam duñ la compal parce que buñ la compalee day nekk doublon wala boog ñu xañ ko jomaay ñun jomaay dañoo bëgg mu am chiffre bu rëy un million deux millions kon loolu ñu dara jël quarante millions yi ñu dara jël dina ko jox daam loolu yàq la te yow am na droit la amul benn droit parce que daam comme ni ko Clédor waxé fi Ben nit mo fi meuna a remplacer Sonko muy Clédor muy muy muy muy muy euh Jomay euh, Mbodj amul xam-xam pour nek président Ben, il n'a pas la tête d'un président non loolu mom dama koy saboter c'est vrai que amul look pour président pour nek président il n'a pas le look président da nga wara présidentiel présidentiable Pape Djibril Fall le bon bon amna xam-xam buy wax nga xamni ki warna war nek président xam nga Jomay Faye il est super qualifié Mais Birame Soleil.. Vous balma, ma moom nag que wax numéro 2 Mais vous balma, ma waaye Birame il ne communique pas bien donc il ne peut pas être président amul fit amul fit mënul nekk président ma jox leen keneen Siré Sy fan ba président euh, euh, baara dolli baara wàññi fu Diar, Mamoudou peut-être qu'il est présidentiable damay saboté Dame rek mais il n'a pas les qualifications pour être président ba pare liggéeyu fi lu mu war a nekk président Dame Mbodj lenn rek lañ ko xamee dossier aji Sarr attaqué na fi euh, Amadou Ba euh, kii maître El Diouf Sen TV noonu la siwee nit ñi topp ko muy défendre Sonko mais Dame Mbodj mu ngi nii ah kenn musu ko jàpp musul dugg prison musoo ko gis ci terrain bi muy xeex dëgg dëgg dëgg il n'a pas mouillé le maillot Bassirou Bassirou Ahmed Aïdara fan lay jaar bu nekk président Bassirou Diomaye il a mouillé le maillot ana Bassirou mi ngi ci kaso bi ana Cheikh Omar Diagne mi ngi ci kaso bi Dame wax rek lay def du musu fi woote appel gis nga keroog ba ñuy wax le 17 moo ne bu kenn toj bu kenn xeex tapet la bu kenn xeex bu kenn toj lu tam la moo tax Mack euh, Macky Sall jàpp même conférence de presse Cheikh Omar Diagne nekk fa Clédor nekk fa xarum xurum xaq nekk fa ñoom ñu ne dañuy dem place de l'indépendance pour marche lan moo tax ñu ñu seppi euh, Cheikh Omar Diagne ak Karim xum Xax ba pare bàyyi Clédor ak moom parce que ñoom ñaar ñi dañuy matt di ëf Clédor moo fi waxoon léegi ne Sonko dañ koy génne léegi léegi léegi léegi Clédor moo ko waxoon dañuy génne Sonko ana Sonko ma ne leen Clédor li muy wax dëgg ana moom it yëf yi ba mu tàngee dafa disparaître kenn gisu ko ñëpp ba yaakaaroon ne sax sax Clédor dafa génn dafa génn réew mi Clédor ñu bëri ñu ngi naan c'est un double agent Sénégalais yi ñu de Macky Sall képp ku mu bàyyi ngay circuler di li di libre ci air bi c'est parce que gaañuloo ko dàmbuj benn benn lenn dëgg la fëgg nañ ko fi juróom-ñaari bal bëggoon nañ ko fi rey mu rëcc ci la téye làmminam waaw mais Dame Dame on a rien mën nga nekk ministre moom mérité na nekk ministre Dame mérité na man fii laa ko xeexal Dame bañ koo xañee député man maanaam waa Pastef ay jaam ngeen Khalifa Sall jaam nga. Dame de députée..! député fou fou fou fou euh, l'autre là comment il s'appelle Baara n'est que député dame député ouais député la nek maire na dem fu mu maire ba pare base politique amo dara ne nek ci télé yi di wax rek warna tax xalé yi bëgg la la rek tax nga da ngay président demal nga dem nga nek ci terrain bi nga nga la mayo parrainage dam fa la soqee ko ban dëkk la soqee ko demal fofu nga nek fa mel nga toj fa basirou jomay le faux shérif Ahmed Aïdara koku mérité wul sax nek député dam moko gëna nek mérité nek député man dam dama ko kassa ma Sonko dafa waron kass dafa waron fexé Dame bo nek député Dame bo fofu la wara a yem député waye parrainage président yow makki dula la nga jall d'abord gëmal yalla do bokk daam doo bokk Guy Marius Sagna du bokk yéen ba Bassirou sax bokkam wóorul Bassirou Diomaye mii ñuy wax sax bokkam wóorul waa Pastef kenn du bokk kenn du bokk ci Pastef bu ñu xeexul léegi nag moom li mu wax ci sonkoo nañ ci ñëwaat nee na seeti na Sonko Sonko ne ko Diomaye Faye du plan B mais Sonko c'est un grand stratège Sonko xam na ne Dame Mbodj làmmiñ du moo rëy daam loo ko nettali dina ko tasaare ci àdduna bi ko moo ko wax li mu bëgg dégg moom mu ne ko jomaay du sama plan B parce que xam na ne Dame làmmiñ moo retax loo ko wax da koy nettali léegi Macky Sall dina ne ah kon jomaay du plan B <coughs> kon Sonko nee ne mooy plan B doo fi nekkee plan B bu yoboo nga def jomaay plan B Sonko dafa muus bu leen fàtte noonu la defoon euh, euh, euh, Barthélemy mu xam ne ne Barthélemy lépp lu mu ko wax mi ngi koy wax Macky muy wax Barthélemy lu lu neex Barthélemy comme ça mi dem nettali ko Macky tey Sonko amul raison ci Barthélemy Barthélemy ngi ni genn di kaas di wax mënul am parrainage di wax ne fichier bi kenn mënu ko gis nee na Barthélemy buñu démé ci élection yi deuxième tour Sonko lay votel opposition bi lay votel parce que Macky Sall da leen war Khalifa Sall buy genn di dem di ut parrainage Macky Sall di ko tere Khalifa il est fini.

jox les parrainage gars parce que gars yi di dundee de ñu Nous ne les ñu nous ne les Fall nous mel ne euh, Habib Sy Habib Sy candidature man mai candidature yow askan bi def pour Sonko bokk Habib Sy pas boobu nga xam système système ne def lépp ba Sonko Sonko man candidat yow askan bi dafa wax rek ci suba 111 ba mu génnee ba légui sen àddina dafa tukki ñu bari dinañ bayyi ñu bari waaw kamikaze option nucléaire Sonko bombe atomique la taal opposition bi dégg ana Malick dégg ti ngeen ko ana Habib si dafa obligé daw delluwaat Sonko Sonko visiter ko pour jéem ko baab Sonko a pris une revanche extraordinaire sur fi mu nekk waxatuñu kenn kudul Pastef Amadou Ba Pastef Amadou Ba Amadou Ba nee na am naa 3 millions Sonko tamit dana dama am 3 millions kon léegi ñeneen ñi fan la ñuy jëlee parrainage ana góorlu Siré Sy léegi mu bàyyi Mamadou Ibra Kane bàyyi na dàmbooj bu yóbbu nga bàyyi doo bokk te yow même boo bokkoon Macky Sall day rëq sa di parce que Macky Sall dafa jàpp ne moom buy bëre moom mooy tànn ñi muy bëreel euh, yow yow yaay roi des arènes Modou Lo yaay roi des arènes nga ne doo bëre ak Ama Balde yaawu jaar rek ngay bële est-ce que loolu c'est normal est-ce que c'est normal Macky Sall li mu bëgg li mu bëgg mënul ne Macky Sall li mu bëgg mënul ne mënoo ne man maay démocratie dama am démocratie senegal ah ay Pape Bibi Fall ñoom ñëpp dee nañu mënoo ne ne yow yow démocratie ngay defal senegal ba pare nga bëgg a tëgg ay élection man neewoon naa leen élection du am. deng si si Sy na région <laughs> Serigne dina bàyyi Ahmed aidara ci boppam ak Malick Gakou nga xam ne milliardaire la Ahmed Aydara nee na da ngay wër da ngay wër ci àll bi déjà ñaari difficulté nga am boy dem ci àll bi police moo lay njëkk arrêté ne la lu tax ngay génn fii naan da ngay Ben, lo <laughs> benn premier dégg kii naan da nga am jalousie man dégguloo li ma la xanaa nee naa la Dame man maa ko kaasal dama ne kaas dafa waroon bokk nekk député mais daam xamul place am day xam lekkam daam député ba muy fan la defee erreur dafa waroon def pression si Sonko ba nekk député mais moom moo fi nekk naan day dem ak euh, coalition nekk fii moom ak ñoom Clédor naan dañuy def ci coalition foofu la defee erreur dafa waroon ñëw ànd ak Sonko ne man bokkuma ci coalition ñoom Clédor xam nga man kaasal naa ko pour mu nekk député daam député la mën a nekk comme moom wax rek lay def a xuloo mu ko waroon yóbbu assemblée mu nekk fa moom moom moom ak Koura euh, euh, euh, Macky assemblée ba ko assemblée rëccee pare na léegi lenn la mën a ñaan bu bu bu ñu amee yow daam mënu sax nekk ministre daam du sax nekk ministre tey bu Sonko nekkoon président billahi wallahi taalahi daam du nekk ministre dañ ko utal poste dara directeur xaw ma le ministère de l'enseignement supérieur mën ko fa ben poste wala ñu ne ko demal université nga nek fa directeur ba xawma ma xawma ban titre nga mëna def université mais da mënu nek ministre sax mënu ko nek il faut que mu xam tuuti day xam lakam dëpp mom bu ko député rëccee ci la ci la ñaké mais na naa ñëwaat ci analyse bi mu doon def Macky Sall problème bi mu am moy mëno dem ci eh, ci l'amb, ci élection nga né man may tan ñi wara a bokk loolu bii du jàll système bi day jëpp fi jóge Macky Sall dafa moom Macky ci boppam moom xam ne am fu mu mën yem Macky nee na Sénégal damay dem G20 benn poste mi ngi fa poste Afrique ma nekk foofu Macky pare Sénégal kon xam na ne système bi day deñ système bi billaahi wallaahi taalaahi leen rek ko mën a leen rek mën tax système bi toog fi mooy Sonko dellu ginnaaw waaye li dàmbooj bu dee wax dëgg la Dame mu deli wax deug la neena Sonko neena tay la gëna déterminé wu tay la gëna déterminé wu damay bokk par force wala Pastef day bokk par force 111 ngok bu dé Sonko fofu la jàpp billahi wallahi ta'ala si sa bi fi jóge Macky Sall lenn moko mëna sauver Sonko sauver ko comme nim ko sauver won 2021 dañ koy gunge ba 2024 te Sonko bi pa bu ñu trahiré boppam la trahir Sonko kese kese kese moo mën a sauver Amadou Ba moo mën a sauver Macky Sall dañ ko jàpp nag mi ngi ci kaso bu leen fàtte loolu mi ngi ci kaso bi mën nañ ko empoisonné mën nañ ko sëriñtu mën nañ ko menacé mën nañ ko def lii mën nañ ko def laa man lool rek ma ci tiital waaye bu dee moom jàpp na fu mu jàpp Sonko même avec le plan B système bi dafiy jóge barki Rasulullah système bi dafiy jóge kon daam daam na yem. daam yemal ñun jomaay la ñu gis jomaay c'est un homme extrêmement brillant man damaa xam nit damaa xam nit fii laa génn il y a deux ans démb tagal naa leen benn vidéo war naa leen benn vidéo man ne leen jomaay fay mii mooy numéro deux man gëmuma ne Birame Souleye mooy numéro deux yàgg naa ko wax mais jomaay temps yooyu ba mu ko waxee ci la génn mu ne non man du ma numéro deux Birame Souleye mooy suñu numéro deux waxul sax ne moom mooy numéro trois dafa ne rek man du ma numéro deux mais tey leer na lan moo tax Sonko tànn Jomaay lu am rek am na lu ko yëngal Jomaay parce que destin nit balaa ngay am lu baax des fois il faut nga am lu bon il faut nga dugg kaso sonn xooslu pour am dara Ablaye Wade ñam na kaso xalifa euh, Sall ñam na kaso Karim Wade ñam kaso Macky Sall rek ñamul kasso mais en général aduna bi des fois il faut nga am jaar-jaar yu metti pour pour pour pour euh, am lu baax. jomay jappam jappam bet nañu bari parce que man dama ne dafa ron kaas bañ koy jàpp dafa ron xex ken war kon japp 11h dafa def yëfu tàppet dafa saraxé bopam mais tay Ousmane man man xas fi Sonko xama Sonko nak say Loko wax wax wax wax borom bop la man dama xas Sonko ma man mënuma comprendre nan lañuy jappé uma jomay Fay Ousmane Sonko xol gi waye tay Sonko ju wax wan nañu lutax mu mu xol gi xeyna da doon testé jomay sa ay Sonko du nité parce que man japp yépp benn moo ci jaxal japp nañ fi ay Bilal jata Sonko xol

ah est-ce qu'il a les épaules est-ce que bu ñu ko jàppee ñu tëj ko neuf mois est-ce que dina changer discours parce que Macky Sall bu la jàppee day wax ak yow si suuf bàyyil Sonko bo bëggee ma bàyyi la defal li, defal la. lan motax buñ bu ñu jàppee fay, Souleye Faye bayiko. même El Malik ñu bari ñi ngi naan ah li tax kenn mënu ko jàpp parce que Macky Sall euh, da ka jënd mais El Malik tamit non la mel dafa dëgër bop. man Pastef ñi ma fa gëna wolu. wóolu El Malik.

Euh, comment dirais-je euh, euh, matériel que moksonko mook Sonko ñoom dañoo dañoo gëm projet bi man jomay dama suis fan je suis wax ne moy numéro numéro deux li tax nak mu il est extrêmement intelligent jomay fay oh la la la la la inspecteur des impôts déjà pour nekk ko nga am xam-xam fo nga jang mathématiques..! nga xam automatique euh, euh, euh, économie te def concours enaa dugg concours booy dugg concours booy dégg te ñi ñu fi tudd ñëpp foofu lañ jaar sama xarit Mamour Diallo ñoo bokkoon classe maanaam jël mu jël deuxième ENA la jaar ba muy dugg moo jël P ba muy génn moo jël P Sonko ENA la jaar ba muy dugg moo jël P Jomaay ENA la jaar inspecteur des impôts kenn mësu ko corrompre comme Sonko ay milliards moo doon jaar ci loxom mais Jomaay mis ngeen ko seetaan muy wax

président Diomaye Faye je valide man je valide moom ak Sonko ben la te deng amna ko fi wax sank kan la len tegal kala door a ko wax xaw ma nee Diomaye Sonko Diomaye la gëna wor wóoru Diomaye la gëna wor il est présidentiable ba paré dafa am benen atout benen atout bima am séeréer la gay de len analyser loolu sax Babacar Touré wax nako mais avant mu koy wax man xalaatoon na ko Diomaye Faye séeréer la te Macky Sall base bi mu am yàgg naa leen ko wax du tukkuleer rek de Macky Sall bu amee doole du tukkuleer yi kese de séeréer yi Fatick la jóge Macky Sall Fatick la jóge séeréer yi ñoo ko jàppale waaye tey séeréer bu ñu gisee ne seen benn doom mën na nekkat président comme Senghor xam nga ne duñ ko fi bàyyi duñu bàyyi 111 naan dañuy dem voter Amadou Ba Sonko c'est un stratège fi mu nekk base APR la la explosé séeréer yëpp yëpp yëpp yëpp jomaay fay la ñuy votel billahi wallahi taalaahi séeréer yëpp vote jomaay la ñuy votel parce que Macky dem na makki bu fi nekkoon moom moo tax Ndiaga Ndiaw ba mu demee pour nekk euh, maire Ndiaga Ndiaw jomaay amu fa dara xam nga lu tax parce que séeréer moom dafa loyal makki Sall la ñu jàpp parce que Macky Sall séeréer la Marème fay séeréer la jomaay séeréer la waaye Marème Faye Marème Faye la sant jomaay fay la sant Sabasi fay gars Ils daneen analyser Sabassi Faye Sonko fait un clin d'œil à Sabassi Faye Sabassi li nga def gis naa ko de moo tax ma jël Jomaay Faye Jomaay Faye bu le président Sabassi Faye moom la ñuy jël def président cour suprême wala président conseil constitutionnel Sabassi Faye il a un avenir radieux moo tax Jomaay Faye c'est un natou... Billah wallahi Allah... man de Mande... élection Macky séeréer la Macky day lakk xanaa fanyum, ko fanyum fanyum, fa wa cha cha fañum fañum fañum fa cha cha même bu nekul séeréer Macky amna na tuuti marem Marème Faye la Macky Sall mo don eh, maire Fatick Fatick mo moy basam ak Kaolack Macky tamit dem len ngon xol ni mu transformer Fatick man fatik la jangé comprendre Sonko dafa mousse Diomaye Faye c'est le meilleur candidat c'est le c'est le candidat rassembleur ba pare kenn xamalu ko rew yaruna na gëm na sëriñ dégg naa Cheikh Bara Ndiaye nee na boo duggee rek da ngay da ngay xam ki kii kii kii sëriñam xam dafa jël ben sëriñ mouride wala je sais pas taf ko ci miri c'est le meilleur candidat mok Sonko six ay neuf c'est la même chose billahi wallahi taala c'est un homme extrêmement simple dégg naa téléphone mom moko don wax sax téléphone sax amuko làmminam téewu ko dam leen laaj Marème Ndour Marème Marème Ndour Marème Ndour fay nu mu tudd MNF nan la tudd Marème Ndour Faye dama leen laaj ko mu naan ko yow viol muy wax affaire viol Adji Sarr mu ne ko yow xamuloo luy viol parce que kenn mësula moo tax <laughs> Marème Ndour Faye <laughs> mu ne ko yaa ngi nii di wax ci waxu viol Adji Sarr Sonko dafa violé yooyu ah yow xamuloo viol parce que kenn mësulaa violé man damaa amoon jànq moom dafa amoon nee dafa amoon benn jànq ñu violé ko moom gis na séquelles yi gis na gis nga jomaay jomaay du nit barke Rasulaay Sonko li mu def c'est extraordinaire mais moo tax man gëmuma fi mu nekk Macky Sall problème bi mu am mooy xam nga la ban problème la am waaw léegi man nan laay def ba éliminer jomaay Macky loolu mooy problème am yéen xamu leen ne jomaay c'est un nato jomaay ak Sonko c'est la même chose c'est la même chose bu leen bu leen mais xool leen engouement bi booy nag dofuñu de Sonko bu ne fii la rek mooy dañ naan foofu la xool leen engouement bi jomaa bu buy bokk di gagné mais problème bi mooy Macky Sall problème bi am léegi mooy léegi waa man parti bi tas naa ko tëj naa ñëpp tëj naa Sonko mais am naa lu ma mën a tere rek waaye am naa loo xam ne mënu ma ko tere mënu nag wax ne bu kenn génn table am nekk ci mbedd yi di ut parrainage te xam na am na nu muy demee mu mu mu commencé tere parrainage yi de Macky Sall am na nu muy demee fii fii la 11 décembre am na nu muy demee mu commencé jàpp nit ñi commencé di jàpp nit ñi wala di tere nit ñi ñu utal 111 au parenage ñu ngi génne ay article euh, L57 ak article 125 ak ñoo xam te comme ni ko Dambodj waxee Sonko mën na aussi wax ne man candidat la par force li Dambodj wax mën na am dëgg la. mën na am dëgg la Sonko dafa dafa bëgg rek taal euh, kii bi dafa bëgg rek nit commencé def activité politique ndax yow parti boo xam da kaa tas terewul nit gën di def parrainage du contradiction loolu du contradiction Macky Sall il a un problème léegi qu'est-ce que Macky va faire est-ce que dafa dialoguer avec Sonko c'est ça la question est-ce parce que Sonko mi ngi woo ñëpp di leen expliquer woo na Cheikh Tidiane Dieye woo na euh, mi ngi consulter nit ñi yow nan ngay nekkee prison ba pare président bi jiiñ la terroriste ba pare bàyyi la ngay recevoir ay nit loolu c'est une incongruité c'est un non-sens c'est une contradiction Macky Sall nan la waxee ne Sonko terroriste la ba pare muy bàyyi ay nit di ñëw mu leen dox wax stratégie bi bii mën na am dafa am lu mu waxanteeg Sonko. ba ñu ko principal yóbbu ko Cap Manuel fofu gëna noy amna fa vélo mi ngi entraîné ñëpp nañ Sonko il est en forme Cheikh Tidiane Dièye néna musul gis Sonko nu mu nekk en forme dambo Mbodj Sonko nekkul en forme parce que dam bët yi baaxul Dame Mbodj bët yi baaxul kan ngeen di gëm Cheikh Tidiane Dièye néna je n'ai jamais vu Sonko en aussi grande forme.

loolu mën na ne bu fekkee ne bokk nañ ci élection yi élection kenn mënu ko sàcc mënoo sacc nday élection yi yaakaar na nit ñi dañuy toog rek bàyyi Amadou Ba ñëw sàcc élection yi comme nu mu defoon deux mille vingt neuf nit ñi toog déedéet kii ne ne monsieur Cheikh instant bi nag mooy loolu. xam nga lan mooy problème bi instant bi Fred Sonko li mu bëgg mooy leen na dem na dem na dem ma dem ma dem Macky Macky mooy problème bi Macky bu xasee dem xam nga ne Amadou Ba teew ñu Amadou Ba mbuucaa la c'est un pas plus nañu fexe ba élection am Macky ne nag day sàcc élection yi nag bu boobaa nag ñu déclenche troisième vague man defe naa soog option boobu la Sonko bëgg def wan àdduna bi gis ngeen dem nañu élection ñoo gagné parce que am na yoo xam ne kenn mënu ko sàcc Gabon <laughs> Bongo noonu la def baye ba xawma 4 quatre du matin xawma ma lan mu génn mu génn nday résultat yi wax moo gagné gars yi ne ko nag yow nak yow say nak yow yow nag yow da nga def booy satch day fekk sax yow say bu dé 10 la ñuy laaj nga am 5 sax nga né xaaral satch wala nga am 4 way yow ñuy laaj 10 nga am ben rek nga am 1 ba paré bëgg ñu am na sàcc yoo mënul nek c'est impossible Amadou Ba kan mo koy votel wa APR san seen bop nee na dañu commencé tit Souleymane Jules Diop nee on est inquiet kan moy voter Amadou Ba même sama jabar bi nga xamné ñom jël nañu fexé nañu ba jël mu mu inscrire leen ñu inscrire ko pour mu parrainer leen soxna néna na Sonko lay voter billahi wallahi taala té yobuma ma Sonko lay voter parrainer ak voter c'est pas la même chose nit ñi sonn nañu courant bi euh, ndox mi ah xalé yi di dé ci gal gi en plus de ça makki day dem Macky Sall day dem te ñi wartu la ñi doon vote séréer yëpp Macky Sall lañ doon voté am na ci Haalpulaar yoo xam ne Macky moo taxoon ñuy voté wóoluwuñu Amadou Ba wóoluwuñu ko ils n'ont pas confiance en lui kenn du ko voté am na ñoo xam dañuy préféré toog seen kër waaye duñu voté Amadou Ba alors que boy yi fi mu nekk nii seen yaram dafa tàng ñëpp a ngi bindu ñëpp retiré nañ seen carte d'identité c'est vrai que téye nañ carte yu bëri mais du tere on va les massacrer bu élection amee. xëy na loola tax bugguñu xeex waaye nag bañ a xeex ba ñàkk sa réew tamit loolu tamit du yëfu du yëfu nit Ousmane Sonko amul droit Maïmouna Ndour Faye Ousmane Sonko amul droit ñu bañ a changer système bi 2024 ñun dañu am confiance ci moom man ci radicaux yi la bokkoon gars il faut ma conclure laaj bi ci radicaux yi laa bokkoon Akhenaton Jiji Baye Ndiaye Sonko day bokk wala ñu taal nday réew mi man loolu laa gisoo waaye comme mooy suñu général te comme man dama ragaloon ne dafa dafa gedd parce que ay temps Pape Alé la ñu wax bàyyi leen ma damay dem sëbi xotaan ah damay dem sëbi xotaan ma def sama grève la faim ma dee loolu loo taxoon ma ko doon attaqué looloo taxoon ma koy attaqué ma ne ko yow boo deewee ñun perte nga ñun perte nañu sama xeex bàyyi leen ma ma def sama xeex su ma demee kap ma ne bu ma benn sëriñ sexy bàyyi leen ma ma continuer sama xeex ma def grève de la faim ma dee ci laa ko commencé génneel comédie <laughs> Sonko lay jooy <laughs> Macky Sall moom ma dóor <laughs> dama bëgg dem sa bi ma demee foofu du ma lekk du ma naan ma dee foofu waaye comme Sonko changé na discours arrêté na grève de la faim te nee na day bokk day xeex laa dama koy wóolu bu nee plan B ma ne ko d'accord dama koy wóolu j'ai confiance en lui Tout en plus que qui mu choisi nag wax dëgg wax naa leen qualité yi mu am ak atu yi mu am léegi kay problème bi mooy bu Macky Sall la ne bu Diomaye du bokk lan la Sonko di def c'est ça la question est-ce que moom Macky Sall jëfuñu dialogue ba am lu ñu juboo bu dee loolu am na nañu wax alhamdulilah parce que ñun bëgguñu rey Macky bëgguñu rey Mariam suñu yaram day tàng des fois ñuy wax kat leen day réew mi taal leen fii taal leen fële waaye bu ñu sañoon jàmm la ñu am makki Sall jox ñu nguur gi dem ñu baal leen ñoom ñëpp parce que pétrole bi ñu ñoo koy gérer ñu développé suñu réew. bu dee Macky am na xel boobu mu waxtaan ak Sonko ñun dañ koy encourage mu waxtaan ak Sonko te xam ne kenn du ko def dara lim ñu def nag metti na rey na suñuy doom tëj nañ waaye bu demee ba ci biir mu am xel dellu ginnaaw on lui pardonne tout moom ak Marème milliards yi ngeen jël jël leen may nañ leen sàcc leen lépp dem leen Mamour Diallo sax dañ koy baal Adji Sarr sax dañ koy baal jar na ko mais nag on va voir ndax waa mais waa APR gëmuma gëmuma de gëmuma gëmuma ñu bàyyi nguur gi noonu de ah kenn mënu ko dindi parce que maa ngi je comprends mieux instant bi non affaire bi man Sonko boo gisoon ma ko doon attaqué mooy ne damay dem grève de la faim dee pap Alé di ko encouragé dem prison ma ne lii nag loolu lii mooy lan grève de la faim ba dee déedéet xeexal yaa xam nooy xeexee waaye xeexal li mu wax Cheikh Tidiane Dièye ça me rassure li mu wax Dame Mbodj ça damay xeex damay xeex damay xeex waaw mag waa APR nag foofu lay jeexale gars yi boo leen yaakaaree ne Farba mu xiif mii gis ngeen ko moom Amadou Ba ñu ne am nañu 3 millions boo leen yaakaaree 111 ñëwaat na. bo len yakar ni wa APR dañu ñew rek jël nguur gi jox len tey rek ngeen dé affaire bu du yomb dé gars yi <laughs> barke rasulaay le docteur Cheikh Tidiane Dieye li wax dafa dafa dal sama xel affaire bu du yomb barke rasulaay il faut que ñu am fulla ak fayda jeunesse bi Sonko li mu def ni c'est extraordinaire parce que fi nek ñepp ñëpp ngi bougé ñëpp ngi wax day système bi daf fiy jógee ñoom saa joogu ñëpp ngi koy wax xalé yaangi wër di dem di signer hein dafa am benn engouement barki rasul lay mais boo leen yaakaaree ne fi yomb nguur kenn du ko joxe noonu nguur dafa neex yéen xam ngeen këru un milliard nu mel man damaa dugg kër Mamour Diallo Louga daf maa invité sama xarit la barki rasul lay saa yéen da ngeen di nelaw xam ngeen këru Mamour Diallo boobu war na mbat lu bon bon war na jar trois cent millions quatre cent millions cinq cent millions trente chambres bu ko ëppul R xaw ma plus ñaata la RG mu ngi leen ko doon wax Mamour Diallo daf maa invité woon gàmmu man damaa gis bokk ci système bi nu mu neexee billahi wallahi taalahi ajjana la système bi Mamour Diallo 4-4 yi muy dawal ah garde yi koy wër këram di ko garde buy dëmb ci tali bi we we we ñu xalil ko yoon bi mu nekk ndaanaan yore xaalis bu dul jeex gàmmu gi dafa dépensé papam ne loolu mu dépense lu dara ci moom bëgguma fi nekk di joxe ay ay secret te huit yàgg na ko def avant Sonko yàgg na organiser ay gàmmu huit ans avant Sonko di rey ay nag di rey ay giléem ay ginaar société traitant booy sol lu weex mooy traiteurs yi jigéen góor ay jeunes sol lu weex du ñu servir rane yi di daw lépp di daw kër gu rafet si boo ci diggee ndox mu tàng chambre yi comme chambre d'hôtel te kër gog mo gëna ñaaw ci kër Mamour Diallo yi xool leen kër Amadou babbi nu mel ascenseur bi barki rasulaay nguur nu mu nexé du sol ay jarñeen yu bes xaliss yu weex bes tak lañ lay may buñ lay jox xaliss xaliss bu joggé bank lañ lay jox barki rasulaay Mamour dafa dafa yewon Mamour Diallo nit ku bax la dafa mëna maye man dama liggé ak mom man mayuma dama liggé ak mom mais des fois Khady Diop bëgguma fi sax joxe ay yenn secret mais pour wax leen rek nguur dafa neex Mamour Diallo sama xarit la sama xarit la dama dama dama dem euh, nu mu tudd sama xarit la dama ko gëj gis ñoo bokkoon classe Saint-Louis ñoo bokkoon euh, lycée Pétavin ñoo defandoo seconde première terminale année blanche bi yëpp ñoo ko defandoo. Je suis le premier, premier suis le deuxième Je le même euh, terminal deuxième semestre sax moo pour vous dire dafa mënoon je fa mais mais moi en général, raw mais Mamour Diallo ba ma bureau première fois je je koy bureau dama suis cadeau je ben, ben sac rek laa ko sac de voyage cadeau là, ko dem mais ba may Mamour dafa ne nii loxoom ci nii nii la def loxoom ci ci ci génne benn enveloppe barki rasulaay booy saa yi nguur neex na <laughs> la trois cent mille francs la ma la jox paas bu ma mere nag sama xarit la dafa généreux man de benn sac bu ndaw rek laa ko indil cadeau trois cent mille mais xoolal billet yi bees tàq soxna ba ma demee di ko jox billet dafa tiit dafa ne ma yow lii la xaalis bi moom xanaa banque la jóge <laughs> saa ku ne nguur neexul ku ne nguur neexul trois cent mille yu bees tax bon man trois cent mille du dara ci man mais dama la bëgg wax rek geste bi xam nga la moom ci jaaxal xaalis bi dafa bees tax xaalis bi dafa mel ne banque lu jóge gars yi dañoo yor xaalis Mamou Diallo gàmmu gàmmu bu defee gàmm bu pare nit ñi dañuy rang mu leen di jox paas barki Rasulullah gàmm bi ma invité Tiwaawan nit ñi dañuy rang te xoolal ay 2000 personnes bu ko ëppul ku nekk mu jox la boo mérité 10 mu jox la 10 000 mérité 100 mu jox la 100 000 xam dañoo yor xaalis ba xamuñu luñ koy def da leer na Mamour am kër Almadi xool leen kër Amadou Ba bi leen kër Amadou Ba nu mu rafete ñooñu nga yaakaar ne parce que Macky Sall dem na rek. eh sàccul de Mamour Diallo bàyyi leen jàmbur di wax dafa sàcc Mamour Diallo dafa jàng comme Sonko Sonko ngi nii am na kër këram bi kan moo ko gën a moo ko gën a rafet Mamour Diallo dafa jàng ne dugg premier génn premier nekk cadre Ablaye Wade def ko directeur de domaine lu yàgg avant Macky Sall mu am xaalis boppam yàgg am ay business bàyyi leen soxor bàyyi leen soxor d' accord 94 ko ciy tudd mais 94 milliards yi loolu wax nañ ci ba pare ñun duñ ci attardé wu Mamour Diallo boo gisee man ma bàyyi ko. c'est parce que parce que man dama kaa tuddee doom sama xarit la ba léegi mais boo gisee man ma ànd ak Sonko parce que man dëgg laa àndal affaire complo Adji saar bi moo tax ma bàyyi sama diggante moom xajam du ma ne sax dama ko bàyyi sama diggante moom moo xajam parce que man Sonko laa àndal bien que sama xarit la tuddee naa ko doomee tout ba ma demee Dakar sax ba mu mujj dem dakaar sax daf dafa coupé téléphone daf ma bloqué pour vous dire mais terewul sàccul géeree la mais dafa def erreur. top Macky Sall ba duggal bopam ci goute bo xamne tay han ah, moy lolu mais mais dama len bëgg expliquer xaliss dañu yor xaliss ba xamuñu luñ ci def auto yi ñuy dawal Mamour Diallo kërëm bobu ay ay 3 4 4 ño fa nek kër gi da fa reuy kër këru këru këru ki bi tu awon te Louga aussi amna fa kër bu rafet dalé leer Almadi Dakar amna fa kër Mame Mbaye Niang mais ñi ay ndaanaan lañu avion présidentiel ñu ngi ci hôtel yi ñu ngi ci piscine yi xale yi jigéen yi façon bu ne la am moo tax ci gis ah dañuy feebar bu ñu demee ba yenn am yenn âge dañuy feebar parce que yenn dund yu neex itam boo ko di lek lek yu neex moo tax ngay dégg ñaan la ki amna jabet ak kii am jalis ak kii la mais nguur gi billahi wallahi taala yéen xamu leen sax nguur nu mu xaalis dañoo yor xaalis ba xamnu ñu ci def ay milliards lañu yor té fi mu nekk nii li tax duñu bayyi nguur gi pétrole bi di waji ñew ka yakkar na ñew Ousmane Sonko nan way système bi dañ ko fi jëlé ni rek du yomb de bo leen yakkar ni jomay fay day bok rek ñew gagné barki rasulallah té ngeen dé nguur dafa neex nguur dafa neex gars yi lañu yor ñun ñoo fi nekk di am problème xaalis. nek fi di liggéey ay bato bien que ñun man ay millions lañ may fay mais comparé li ñuy fay Mamour Diallo Mamour Diallo rek directeur rek directeur 16 millions la amna ci directeur lo xam 16 millions lañu am par par mois xamu leen loolu <coughs> Mamour Diallo mën na ma fay mën na ma fay 1000 fois li may fay ko ci bato directeur dégg naa DG Macky Sall 16 millions la ñuy am par mois DG 16 millions par mois donc année bi di nga am 160 millions boo liggéey 10 ans am un milliard sans compter li ñuy avantages, ak avantage les lii les lelek lelek logement lii ak lii yéen xamu leen nguur nu mu neexee nguur nu mu nexe ñu lay garde ngeen yaakar na ñi dañuy jekki jekki jël nguur gi jox leen d'autant plus que dañoo ragal ne bu ñu jëlee nguur gi dañ leen di jàpp parce que dañoo sàcc 32 milliards fii dañoo sàcc 94 milliards fii dañoo li boo leen yaakaare ne Jomaay Faye wala Sonko day ñëw rek jël nguur gi te xeex du am yéen a ngi nax seen bopp pour ñu jël nguur gi allah kulli aali xeex dina am man loolu laa gëm armée bi sax am na nu muy demee mu mu ne mukk du ñu jox nguur gi Sonko daal di jël yëfi parce que kan nekk ci armée bi ñoom Sidiki Kaba ñoo fa nekk ak ñoom ñoom ñoom ñoom euh, euh, euh, l'autre Antoine Diome da nga yaakaar ne Macky Sall dem na rek ñooñu dina ñu jël yëf yi jox ñu ko dañuy nax suñu bopp. yéen xam gis nga Khady jóg man ci bateau laa nekk di liggéey di fayeku ay million mais damaa xeeb sama bopp su ma gisee Mamour Diallo li ma am te ñun ñaar ñoo bokkoon classe damay xeeb sama bopp mais ku nekk ak sa wërsëg mais lu dul yoon mooy ñoom ñu bàyyi leen rek ñu continuer di yor ay milliards xale yi di dee ba pare ñu dara indi ay Guinée ñu dara nekk suñu kaw sëriñ yi nekk suñu kaw. di ñu di ñu di ñu di ñu noot ba illaa yow mi din loolu ñu ko nangu booy ñoo war a jël seen responsabilité même bu Ousmane Sonko teggee tànkam ñoo war a jël seen responsabilité boo leen ko deful ñun on a perdu ñoom ñu gagné man de dootuma dugg Sénégal Amadou Ba bu gagné su ma duggee Sénégal damay xaru kon ñoom ils ont gagné loolu ngeen bëgg da ngeen bëgg ñoom ñu gagné Sonko moo ñu mën a dimbali waaye Sonko wóolu benn nit wóorul. yéen confiance aveugle bi ngeen am ci Ousmane Sonko moo tax ngeen jàpp jiji di ko saaga di saaga <coughs> Baye Ndiaye <coughs> di saaga ne Akhenaton ñooñu seen jàmm lañ leen bëggal parce que ñooñu ils sont pas naïfs man du ma jël sama confiance lépp ma jox ko Sonko parce que noonu laa defoon deux mille vingt et mu ne nañ gunge Macky ba deux mille vingt quatre tey gunge bi deux mille vingt quatre moo ñu indi lii. kon tey encore bu ñu naree jàpp confiance aveugle ne Sonko lu mu wax noonu la Sonko bu jëlee mauvaise décision on est foutu. bu buñ ko nee doo bokk mu ne d'accord ñu ne ko jomaay du bokk mu ne d'accord tey damaa gént gént bu gént bi ma gént Macky Sall ne Sonko ñaari yëf fi am da ngay nangu def deux ans defe naa deux ans lañ ko tëj ci affaire Adji Sarr il faut nga tëdd sa deux ans boo ko deful du baax il faut nga nangu man nag maa fa nekkul di wax non non may yuuxu non Sonko non gént bi noonu la jeexee. Sonko bu jëlee décision bu bon Antoine Diome danga ngeen yaakaar day jël nguur bi jox ñu ko Antoine dafa def ay dafa def ay nitam dañoo def seen Macky Sall il est fini fi mu nekk Macky ñoom ñoom Amadou Ba Antoine Diome ñu ngi def seen plan Macky bu ndaree dem nee na day dem ñun nañu xool nan la ñu war a def les mêmes some ñoo fi nekk ñoom Bandiaké fi nekk ñoom commissaire Sangaré ñoo fi nekk ñoo ñoo fi nekk les commissaires sanguinaires boo leen yaakaaree ne nguur gi dañuy jaar ci élection mu jeex nax ngeen seen bopp Sonko bu xeexul dara duñ ko am dadul yoon sax mu nekk ci prison bi ba léegi c'est pas normal mu nekk ci prison mais léegi convaincre ngeen ma sax man ba léegi damay def live fàtt sax moo tax ma ne xëy na diir la parce que lii du prison moom lii moom du prison ku ne dama bëgg dem prison day fekk nga nekk Philippine waaw kay <coughs> man Philippine rek laa mës a gis nit ku ne kaay leen ma dem prison parce que dañoo am benn président bu tuddoon Duterte Duterte démb rek maa ngi ci waxtaan ak benn Filipino fii benn jigéen Filipino mu ne suñu président boobu amul caaxaan ñi fi nekk di jaay drogue ak di sàcc di agressé xam na lan la def Duterte buñ la soupçonné waxuñu la sax buñ la soupçonné ne yow agresseur nga sa kër la lay fekk duñ la jàpp de dañ lay rey day dugg ci village yi di rey di dugg ci quartier yi di rey ñu ne eh monsieur Cheikh kii la jaay jaay drogue dëgg la dëgg yoonam nekku ci. day ñëw rek commencé rey léegi jaaykatu doro ji ñoo commencé dem di jëbbal seen bopp di traité léegi bi am nañ beneen président bu bu bees président bi bàyyi noo yooyu mais di traité noonu la doon def léegi prisonnier yi di di dealer yi nga xam ne ñoo nekk fa di jaay kay di jaay géere ñoo doon dem di jébbal seen bopp baal ñu bul ñu rey léegi ñuy dugg prison foofu laa mës a gis nit ku bëgg dugg kon nag munu moon comprendre Sonko moom it mu naan dama bëgg toog prison li ma ci jaaxal <coughs> lan moo Sonko waxul ñu libérer ko ba ba <coughs> ngi comprendre dil la Sonko en prison bu en prison day day wax ma Sonko il n'est pas en danger mort man dama makki da mais nak makki nañ ko waxal dëgg nañ ko waxal du opposant politique du empoisonner opposant politique du rey opposant politique ndax Khalifa Sall def na trois ans Karim Wade tam def naa na trois ans Sonko tamit mu nango def 2 ans est-ce que dafa def ben deal ak Macky je sais pas mais dal nekul prison waxal na len mo baye bopam kasso billahi mo baye bopam kasso dafa def kasso dafa Sonko bu beugé génn suba billahi wallahi wa watallaahi su beugé génn suba génn barke rasulilahi mo la ko gëna xam dafa waxtaan ak Macky mu ne ko doo taal réew mi kon dinaa la may jam do bok bu la neexee nag nga jël jomay bu dé genre dil boobu la def fine mais dal ñun dañu am confiance ci moom am confiance ci moom te yalla bu mu suñu yaakar yalla bu mu tax ci Ousmane Sonko. am yépp man plan B waxoon na leen ko waxoon na leen plan Papa Alé ci plan B lañu bëgg yóbbu parce que Rasulaay man ñu ma nax dé Sonko mako mak mais xam nga affaire lan moo tax mu nekh Khady Diop <laughs> li ci kanam raw li bët trois mois moo ci des rasulaay carte gi dina leer par force xaw ma da ngeen ne diil xaw ma diilu leen waaye day leer par force janvier yàlla nañu yàlla fekkee rek man xam la la yàkkamti Badio kamara buy joxe résultat yi ñu bokk ñu dul bokk man waxuma sax février balaa ngay wax 2024 day fekk ñu xam ñan ñooy bokk ñu dul bokk loolu laa bëgg loolu laa yàkkamti yàlla nañu yàlla may fekki man nag man mais balaa boobu Je suis lu bëri dina dina am ci diggante bi lu dina am ci diggante bi mais daal nañu am nañu am parce que Sonko il est positif donc nous aussi on doit être positif waaw suba dina leen information bu ñu a def live ñu def live di leen gërëm di like di partager like di partager merci.